Kalau bu jigéen bi dafa doon def bag ma papa ustaz, dama bëgg nga ñaal ma damay def bag ma ne ko mas ngaa def mu ne bii mooy sama ñetteelu yoon comme affaire bi mbirum psychologie la duga ne ko duggal bi ma ñëw sama néeg ma dugg néeg soxna si rek ab ab Euh, suru dënk ñëw fekk ko fi mu toog rek ma muur ko ko dem ca saal ba di waxtaan <laughs> mi ngi ñaq ñaq ñaq waaye ñi moo ko mburi <laughs> ma waxtaan moom neex ma rek ma ñëw ne ko mu ret mu ne <laughs> ko tàllal sa loxo mu tàll ma jabatoo jabat ba mu neex ma rek ne ko tëf ne ko demal bu fi jox kenn loxo nag li fekk àggu ca kër ga mu dem def rek am dégg nga daal ni morom ji am nga mu ne ko oral laa am mu ne ko añ dem ci papa oustaz <laughs> comme affaire bii ci ci xel la nekk te moo ko indi ma ne su ma ko defulut la ma ko defaloon su génnee dana ko laaj rek ma ne ko demal ci néeg ba xaar ma mangis ngi gis moom mi ngi bëgg bi ma koy mourat dama mouron muuroon dam yag mu ñew muri ko ñaal mu mu ci ci fenêtre bi ma dégg ma ko mour na la <laughs> mu ne waaw rek mu bëgg donc gis nga yoyu la jabar yi xam ci bop nit ñi di top nak diko exploiter di ci indi di ci jël ci xaliss lo xamni kenn xamnu nu mu toll waaye mbokk yi ko xamni ci koñ bi dafa luyee pantéré tek ab matla ak kurus dong dañ koy tibbal añ baadu du añ yow nga jóge sa kër warsa auto oto 4x4 gaar ci buntu bi mom lum la wara defal su fekkoon da lay ñaanal nga jege yalla jar nako am am waye waaye fa nan ko yakal ma diw ak ne fi jog ak yo yamul solo